له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بالله وتوب عليه mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su loolu weesoo nga ñëw fi su loolu weesoo ñoo ngi dellusiwaat tey ci darsu yi nga xamante ne ñoo ngi koy amal ak sa sa mii te darsu yi ñu tënk ci benn téere bi nga xam moom tuddoo ñoo koy tuddee maada yaani intimaai fi lislaam askanoo gi may askanoo ci lislaam lan lay tekki te ki ñuy wax fatxaya kan bind ko lu jiitu ñuy dugg ci téere bi tënkoon na kan mooy fatxaya kan ak jaar-jaaram wala dundam ci ginnaaw ba tamit def na laytaay ci téere bi ñu nekk tey ci ñeenteelu dars bi kon li ñuy def rek mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dafa ñu tawfiq ba ñu dund ba jeexal téere bi la ca nekk ci njàngale ñu mun koo dund ndax jullit bi bu nekkee ci lislaam war na xam lan mooy diine ji mu nekk dëj gi mu nekk demoon démb lu mel noonu moo nekkoon suñu bayaan bi ñu bari fii di wax mais dañu xamul seen diine tey ku ñu wax ni kuy sa borom ci biir bàmmeel la ngay njëkk am problème mooy ku boo jàngul xam sa borom mooy kan joxe ci firnde boo xamoon kuy sa borom kon bëgg wér lu tax nga jël sa yaram bii rek di ci bokkaale yàlla bu ëllëgee nga nar tabi safarwe ñàkk xam yàlla moo ko yoral ñàkk xam yàlla moo yoral aussi ñàkk do nga bañ a doyloo yàlla ba tax ngay dem ci dem dikk joojoo ñàkk di dugg ci ay xar fuur kon téere bi ñuy jàngale kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ndax ci ngay xamee lan mooy sa cër ci lislaam ci ngay xamee sa taxawaay bi nga war a taxaw ci lislaam te taxawaay bi fii lañ koy taxawee ci àdduna duñ ko taxawee àllaaxira kon yàlla yàlla dimbali ñu dimbale suñu mbokk Saïd ndax moo ngi def ay effort yu mag pour ñëw bokk ak ñun jataay bu mag ji muy jataw lislaam xam ngeen moo ngi bàyyeekoo bëggee jowaay te bàyyeekoo ci liggéey ndax xam ngeen bés bi bésu tafsiram la day jóge ci masjid ba ñëw fii kon ñu bàyyi ci xel ba xabaar effort màgg jooju kenn ku nekk war na ci bàyyi xel ba buñ ko waxatee ki mun a teelee ñëw teeleel ñëw moo gën kon insha allah ñu delloo kàddu gi insha allah sa Saïd ñu ànd bokk déglu insha allah kon ustaad microphone insha allah tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي عندك ينتي تيربيري ماذا يعني انتمائي في الإسلام تاي mu nekk sunu ñeenteelu dars tey ñoo ngi jël juróom ñetteelu tomb bi wala juróom-ñaareel mu ne juróom-ñaareelu tomb bi lim nuy jàngal mooy asmaullah mooy turu yàlla yi wa sifaati ak ay melokaanam turu yàlla ak ay melokaanam mu ne sunu borom subhanahu wa taala jaala li kulli matlub sabab sunu borom dafa def lépp lu nit di ut yàlla utal ko sabab waaye yàlla yamul ci utal ko sabab waaye wa tariq yusilu ilayhi yàlla dafa utal yoon woo xam ne soo bëggee dara foog nga jóg sabablu waaye foog nga jóg jaar ci yoon woowu yàlla utal ko yoon loolu nag wal imaanu huwa azamu almatalib almatlab wa ahamiha ngëm yàlla lu nit ut ci àdduna ngëm yàlla moo gën a yey ut alal ut xam-xam loo mën a ut nga dem sàkku ji ngëm yàlla moo gën a rëy yàlla moomu subhanahu wa taala moo def nit war ko xam moom yàlla war a góorgóorlu ba xam kan mooy yàlla moo tax mu ne wa min azami ma yuqwi l iman wa yajlibuhu maarifatu l asmaillah wa husna li gën a rëy ci liy dëgëral ngëm doomu aadama mooy mu fexe mu xam turu yàlla yi asmaullah wa mu a borom téere bi mu ne an taarif alallahi min asmaihi wa sifaatihi nga xam yàlla an taarif alallah mooy fexe leen xam yàlla nuñ koy xamee mu ne min asmaihi ci ay turam waaye wa sifaati ak ay melokaanam gis nga ñàkk xam yàlla mi ngi tàmbalee ci ñàkk xam turam yi léegi gis ay tur yoo xam ne comme benn waaye wax na ma ko barki démb sama benn parent d'élève mu ne ma damay wird ahamun saqamun xalalun ma ne ko du turu yàlla tegal ci suuf balaa ngay dof tur boo xam ne sa waay boo ko bindoon ci ban tableau bi fees na ko te xam ngeen loolu lan moo koy waral mooy dañuy ñëw jël malaakal almuqarrabin malaaka yi jege yàlla ñu coppati ku nekk sa benn xarf ci sa tur jibril ñu jël jiim mikaayil ñu jël miim bi malaayik almuqarrabin ñu jël ku nekk benn xarf ci yow ñëw ci anbiya yi ñu jël coppati ku nekk benn xarf ñëw ci mursalin ñu coppati benn xarf ñëw ci nit ñu baax ñi ñu coppati benn xarf loolu yëpp ñu def ko benn tur ñu ne la wirdu ko wala ñu jël turu jinne yi composé ko jox la ko nga koy wird waaw benn sëriñ bu fi doon wone day wone yàlla mu ne man ku ñëw ma won la yàlla benn borom xam-xam bu mag ñëw ci moom ne ko damaa bëgg nga won ma yàlla mu ne ko toogal mu toog guddi jot muy nit ko mu reer dugal ko ci saal bi te fay làmp bi di wird di wird di wird ba benn ponkal ne crec mu ne ko yàllaa ngi mu ne ko kii jinne diw la kii jinne la te diw la tudd boo bàyyil caaxaan yi ngay def doomu aadama yi wane woo yàlla yàlla kenn mënu ko wone loolu nekk fii loolu moo nekk fii ci dëkk bi mooy jël ay turu jinne di ko wirduloo ay nit su leen jinne bi feeñoo walla ci nangam ñu ne yàlla lañ gis fekk gisuñu yàlla jàngi naa ko naan yàlla mu ne wadari alladina yulxiduuna fi asmaihi bàyyil ñi nga xam ne dañuy falsifier turu yàlla yi yàlla dina leen fay lañ doon def yaa ngeen yàlla mu ne walillahi asmaul husna faduuhu biha xam turu yàlla yooyu alwaarida fil kitaabi wa sunna yooyu ñooy turu yàlla turu yàlla mooy lu yàlla wax ci alquran ak sunna leneen lu ngeen gis nekku ci mooy tandiku leen ko wal xirs ala fahmi maaniha ñu fexe ñu xër ñu xam maanaa turu yàlla yi allah mooy lafzul jalaal bi li ci des mooy sifaat yi arrahman arrahim almalik alquddus alsalaam almumin almuhaymin al yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeenti téeméer bu manqué benn ku ko mokkal dugg aljanna ku ko mokkal tey jii fii ñu toog buñ ne woon turu yooyu ku ko mokkal saa yoo dugalee sa loxo sa poos fekk fa dix mille kan ci ñun fi moo ko dul mokkal wi leen man suñu ne woon tur yooyu ku ko wax ba pare rek bu jeexee boo nee nii rek gis allahu akbar nga gis gaa yi ne tay tay nga gis ku ñu bëri ñu démissionné liggéey waaw saa yoo waxee am dix mille pourtant mbokki jullit yi chaque jour li may wax rek mooy gis nga yàlla ñun dañ ko yittewul moo tax amuñ ci moom dara yàlla daf ñoo jaralul dara moo tax duñu am ci moom dara dama laaj ay xale yu ma doon defal thème de formation ma ne leen fajar bi tey kan moo julli ji jàkk ñu ne oustaz da doon taw tey dafa taw taw bu for kenn on du taw te no kenn da doon taw ñu ne waaw ma ne moo tax julli jiw leen ñu ne waaw ma ne kenn ci yéen ci xale yu góor yi ñu ne waaw ma ne boo tëddoon ba deux heures du matin muy taw xale bu jigéen bi nga nopp ni la diw taal wala téléphone diw nga ne mu ne maa ngi fii ci taw bi ah ci yow laa bëgg a ñëw mais dafa lëndëm te ma génn naa suñu kër maa ngi fii fii xaw ma fa ndax da ngay sangu sa mbaaji tëdd ku may tontu fii ku may tontu kan moo may tontu fii bismillah doo tëdd de nooy def jóg kuus taw bi ak say kër kër egsi ah xale bu jigéen ñeneen ñi man leen bu leen benn milliardaire woowoon ne la damaa ñëw ba sa wetu kër mais xamatuma ndax taw bi courant bu coupé bi lëndëm bi xamatuma sa kër ban côté la nekk dama la doon indil kii mais ma baal ma ñibbi wala ma mën nga ma jël si looy rek ku may tontu bi ah da nga koy jëli waaw léegi xool leen ñaar yooyu nañ imaginer ñaar yooyu xale bu jigéen bi ak xaalis bi li ñuy am ci yàlla dem julli ji fajar jàkk ci taw boobu léegi yow yàlla jarul la xuus fajar dem ci taw bi julli ji mais xale bu jigéen bi jaral na la ko xaalis bi jaral na la ko léegi kon ana lan ngay am ci yàlla lan la ñuy am ci yàlla te ñun ñëpp nag noonu lan mel maanaam yàlla moo nu ñorul te yàlla subhanahu wa taala fekk amoo ci moom yitte bu la gënal lépp loo lépp lu mën a doon doo am ci yàlla dara da ngay jagar-jagari nii rek maanaam da ngay tricher gis nga loolu moo wax leen xale bu góor boobu nga xam ne waa ji da koo ndaw si da ko woo téléphone rek saa yi mu jóg sànni mbàjju mi tëj buntu bi xalaatul taw xalaatul lëndëm xalaatul dënu xalaatul ndox mi xalaatul agresseur xalaatul dara véréreurs yi ñëw ba fekk xale bu jigéen bi taxaw daf koo jaral nga xale bu jigéen bi mu ne lii yëpp yaa ma ko jaral walla nga ko bëgg nga ma yenn saa nga de xale bu jigéen bu ne booy yow jar ngaa toog ci ànd wala kooku da koo jaral ba mu ne jar na xale bu jigéen bi jaral na ko mu toog ci ànd nga dékki ne jar ngaa toog ci signeel yenn saa yi kenn jar ngaa jaay jàkka ji waaw jàkka moom teñ ko bañ a jaay te nga bàyyi suñ jàkk waa léegi xoolal kii yëpp lii jaral ko jaral nga ma jaral nga ma ba nga fekk nit ñi di julli nga ne da ngay jaay jàkk ana yàlla lu mu luñ jaral ah voilà lii mooy lii mooy suñu problème lii mooy suñu problème yàlla moo ñu jaralul dara ndax xam nañ ne moo tax lii nii du ñuy def nii yenn saa yi da nga def dara da nga yeewu dem julli jàkk jàng alxuraan mais au fond doo xam li nga war a am parce que xamul tax ki nga koy defal xam na ne yow da nga koy def nii pour ñàkk pexe jaraloo ko gis nga islam bi diina yàlla ji daf lay jaral nga xam bu baax a baax a baax ah asmaullahi alxusna wal xirsi ala fahmi maana maaniha nga xër pour comprendre maana bi du waxuñu la rek arrahman nga ne arrahman mooy tas yërmande ci àdduna terminé non benn tur bu ci nekk mën nañ ci taalif ay téere benn tur yàlla bu nekk mën nañ cee bind ay téere abal sax commencé na borom xam-xam yaa ngi commencé di jàngale asmaullahi alxusna wala téere bi ma yor nii dan lañu bind sarx asmaullahi alhusna par benn tur la seex bi di jël di ko jàngale par benn tur sarx mi ngi nii asmaullahi alhusna fi dawi lkitaabi wa sunna waaw kon il faut ñu góor góorlu bu baax du hasard rek sëriñ bi fatiha kan di jàngale maza yaani intimaay islam di jàngale pas-pas xoolal tey da ngay dégg gars yi bu ñu doon ko critiquer dañ naan kii ci borom pas-pas yu wérul yi la parce que ñàkk dégg diine bañ commencé ba léegi ci aqida lañ nekk lam jàngale ci aqida amul kenn ku ko mën a dindi ci àdduna te pourtant bu ñuy jàngal aqida dañuy dugal asmaullahi husna moo ngi nii ñu jàng loolu bu baax a baax ñu xam maan yi ci alquran ak sunna wa taabudu lillahi biha waaye dañ koy jàng pour jaamoo ko yàlla ñu bañ ko jàng pour pour njabar ñu jàng ko pour jaamoo ko yàlla turi yàlla yi dañ koy jaamoo yàlla dañ ciy def ay azkar dañ ciy xalaat dañ koy jàng moo tax mu ne walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wazaru alladina yulhiduna fi asmaihi sayujzawna ma kaanu loolu mooy li nga xam ne moom moo wér mu ne ñëw na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa qad sabata fi sunna as-sahih min hadisi abi hurayra radiyallahu anhu wa arda annahu qaal inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mia illa wahid man ahsaha daxala aljanna abu hurayra ne yonent bi nee na yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent téeméer bu manqué benn mu ne ku ko takk man ahsaha ku ko takk peeg ko comprendre ko mu ne daxalal janna kon ku duggul aljanna yow yaa yow yaa fi des yow la wala da ngay gis fii koo xam ne sa waay dañ ko ne lii boo ko defee am alal mu dem di ko def yenn saa nga gis ku def sacrifice rey jabaram wala mu rey papaam wala mu rey yaayam wala mu rey doomam wala mu dagg benn cër ci ci yaramam pourquoi pour ma am alal pour naa am alal waaw lii gine boo ko defee dugg aljana léegi lu fi des kon kon ñun suñ duggul aljanna kan kan lañu war a critiquer kan lañu war a wax sunu bopp mu ne ànd ay man hafizaha wa fahima maaniha wa madluliha waaw dañ koy mokkal comprendre ko xam li tax baa di jóg loolu mooy asmaillah alhusna loolu tax seex bi mu ne an taarif ala allahi min asmaihi wa sifatihi da nga koy xam comprendre ko waaye xam li tax baat yi jóg wa asna ala allahi biha booy tagg yàlla nga tàggee ko ko loo moo da gis nga souvent nga dégg ku ne bokk bu ne man damay ñaan ba sonn mais yàlla du ma may da nga koy dégg xam nga lu tax ñaan dafa am yoon même nit boo koy ñaan daa am yoon nit boo taxawee këram rek ñu ne taxaw ci buntu kër gi rek rëg rëg rëg rëg waa yi ne la nga ne ko cinq mille laa soxla waaye kii yoon kii yabaatewul in ki lu def nii waaye boo ñëwee nga fëgg ndànk mu bi nga ne asalaama sëñ bi dama la soxla nga ànd ak moom mu ne la toogal nga toog nga commencé yenn saa yi bala ngay pare sax boo ñaanoon cinq mille mu jox la lu ko ëpp c'est parce que dafa am yoon ni nga jaar rawante na ak yàlla yàlla bala nga koy ñaan da nga koy tàgg da nga koy kañ xam ne mooy sa borom moo la moom boo ko taggee ba pare doo ko ñaan beneen bi mooy booy ñaan ci li nga soxla ngay ñaan tur boobu ngay jël dama soxla xam-xam ba pare naan yaa razaq quelle contradiction dama bëgg wërsëg naan yaa latif wala ma naan yaa aziz déedéet saa yoo soxlaa li nga soxla tur boobu mu ngi fi jëlal tur boobu xam-xam laa soxla kon lan laay jël yaa alim yërmande laa soxla lan laa jël yaa arhamar rahimin xoola yonent bi nee na yàlla am nay malaaka yoo xam ne dañuy wër kaw suuf ku ñu dégg ñu ne yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin ñaata yoon la malaaka yi ne la ñaanal yàlla may la loola moo tax aussi foofu ñuy tere nga yor benn tur di ko sikkar deux cent fois wala ngay ñaan quatre ñu ne la yenn saa nga dégg benn sëriñ bu la jox benn tur ne la tur bi dee ko def junni misaal yaa allah ah nga yor kurus ki yaa allah yow yàlla mu ne ah nga nekk fa yow yàlla mu naan ah nga naan yow yàlla yow yàlla nee na ah bu njëkk ba pare nga defe naan yow yàlla yow yàlla nee na ah bu yàgg yow yàlla yow yàlla yow yàlla yow yàlla est-ce que dégg ngeen wax bi kon ki la wax ne la wird ko junni daf la nax même nit sax soo ko defoon mu taxaw naa la yow diw nga ne ah eh diw nga ne ah mu taxaw naa la diw diw diw looy wax ah lu mu lay wax danaan kii seeti leen ko yow woo nga ma wuyu naa gis nga loolu tax wird yi daf leen attention yàlla boo waxee yaa allah yaa allah yaa allah ñu ne labbayka ya abdi wuyu naa la yow sama jaam ñaanal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ñu ne la wuyu naa la yow sama jaam ñaanal moo tax ki la wax wax def ko dë nag xoolal benn gis benn waaye bu yor kurus nag bu sa waay quatre-vingt-dix fois laa koy def par jour dañ lay nax moo tax amul ci yooyu wird bu wér ne yonent bi sa aslam nee na def leen ko des nangam na amul parce que li fa jaaduwul te nekkul yoon te xel nanguwu ko kon nañu comprendre bu baax loolu ñu comprendre bu baax lañ ci jublu suñuy ñaan yàlla ñu taggee ko ci wa sa'alahu biha booy ñaan yàlla nga ñaane ko tur yooyu booy ñaan yàlla nga ñaane ko tur yooyu ndax loolu lañ la wax waaye wa atiqaaduha wa itiqaadiha nga am pas-pas bi ci sa xol yonent bi saa sallam nee na lii ko def daxalal janna mu ne wal janna nag laa yadxuluha illa al mumin illa al muminuun aljanna ku gëmul yàlla du ko dugg de hadis la laa tadxulul janna xata tuminu wala tuminu xata taxaabu ala adullukum bi seyin waxid ida faaltumuhu taxaababtum afsu salaama baynakum aljanna ku ko bëgg a dugg caabi ji mooy nga am ngëm yàlla boo gëmul yàlla doo dugg àjjana kon loolu tax ñu war a defar ngëm yi fa ulima anna zalika azamu yanbu wa maddatu lxusul l iman loolu mooy balluwaay balluwaay bi nga xam ne moom la ñuy amee yoon woo xam ne danañu yóbbu ci ngëm yàlla yoonu aljanna mooy ngëm ku bëgg a dugg àjjana gëmal yàlla kon loolu mooy tomb bu njëkk an taarif ala llahi nga xam yàlla min asmaihi ci turam waaye wa sifaati ak ay melokaanam yàlla dafa yor ay melokaan waaye nurawul ak nun nag ñetteel mu ne an atafakkar fi xalqillah ma xalaat ci yàlla bind bi mu bind an atafakkar fi xalqillah yàlla dafa bind ay mbindeefam nit du xalaat ci yàlla ci lan ngay xalaat ci mbindeefi yàlla yi boo xalaatee ci yàlla da ngay alko ay toog na waaye yàlla moom mooy kan moom moom nu mu toll oh xam naa ne kon war na ngand de gis nga léegi nga alko léegi nga pare waaye da ngay xalaat ci mbindeefi yàlla yàlla dafa bind asamaan toogal nga xalaat demal ba géej nga toog ci montagne yi nga jàkkaarloo géej nga xool ndox mi nga xool asamaan si xool biddéew yi xool ngelaw li xool mbindeef yi nekk ci biir géej nga xool yow mii doomu aadama yàlla ne wa fi anfusikum booy jommi sax xoolal sa bopp rek doomu aadama bu xooloon boppam rek waaw yàlla mu ne sa nuriikum ayatina wa fil afaq hatta yatabayyana lakum annahu alhaq wallahi dinaa leen won samay kéemtaan won leen samay preuve ba ci ufuq yi horizon horizon yi su ngeen xoolee ngeen xam ne man yàlla maay dëgg amul keneen ku dul man an atafakkar fi xalqillah inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wan nahaar la ayatin yàlla nee na bind ba ma bind asamaan ak suuf wuutale gi may wuutale guddeeg bëccëg borom xel yi war nañ cee xalaat inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wan nahaar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون xool leen bind bi mu bind asamaan ak suuf ngeen xool gaal gi may dawal ci kaw géej géej boo fa sànnee birig nu muy def lu tax birig bi suux dafa diis ah moo tax mu suux birig ak gaal la ëpp moo tax gaal gi suux te boo fa sànnee birig mu suux nga teg fa gaal moo ëpp birig suux xoola bato am na bato yoo xam ne buñ la ko wanee moo ëpp Grand Yoff ñu teg ko ci géej gi suuxul man fulki lati tajri fil bahr yàlla lu mu tax suuxaluma ko mu ne bi maa yam fa unnaas ndax day jëriñ nit ñi loolu war nañ cee xalaat de xoolal gaal gaal yi sax dafa ndaw jël leen bato yi daw di yóbbu pétrole ci adduna bi di indi conteneur yi xoolal oto yi fii li koy wàcce lan moo koy indi yenn saa yi nga gis benn bato boo xam ne liñ ci teg ci oto mën ëpp na mille te suuxut ak moom ak nit ñi mu yab ak bagage subhanallah yàlla mu ne bi maa yanfa unnaas wa ma anzala allahu min as-sama ak ndox mi di yàlla wàcce mu jóge ko asmaan loolu tey bu tawoon ba pare ñu ne la sawaay ñu ne ñu ne yow yaay fay facture bi tey Macky Sall mën na fay facture bu tawee ba pare ah seen président bu bees bi Amérique mën na fay facture bi ah Trump mën na fay facture bi bu tawoon ba pare ñu dajaleel ko facture yi ne ko tey nag yow yaa koy fay dina ko fay wa ma anzala allahu min as-sama min ma yàlla mu ne fa ahya lan la yàlla wax ci ayay yàlla nee na ndox moomu ma wàcce ngeen defa ne dama ko wàcce ni hasard day dundal suuf si deewoon ba pare bu tooyee ba pare yàlla mu ne dama ciy génne bépp daawa gis nga bu tooyee ba pare laaj leen ñu dëkk ci kaw àll bi da ngay gis façon gunóor yow musta gis nga gis façon rab yow munta gis nga gis façon weñ yow musta gis nga gis façon picc yow musta gis min kulli daaba yàlla mu ne wa tasrifi riyaa xoola may tas ngelaw li muy naaw nu ko neexee ngelaw li ko moom fi mu ne loolu tax muy ñuy dund ku ñu téye woon sa ngelaw benn seconde rek nga dee kan moo yor ngelaw li yàlla mu ne maa ko yor wa tasrifi riyaa maay tas ngelaw li lu ma neexee mu neexee ma jële ko gauche yóbbu droit mu neexee ma jële ko droit indi gauche kenn du ko téye mu soo gis benn waaye ne tey damay bloqué ngelaw li du fi jaar tasrifi riyaa wa saxaabil musaxar wala niir yàlla nee na maa leen tàggat ci nii lañ bëgg nga xalaat kan moo ko def fan la lay yóbbu résultat bi nga xelu xam ne kii ki ko def mooy yàlla moo tax gis nga Ibrahima ba muy waar nitam ya dafa xool gis weer biddiw mu ne lii mooy sama borom yàlla jële ko fi indi weer mu ne kii mooy sama borom nag yàlla jële fi weer wi indi jant bi mu ne kii mooy ko ngand ki nag kii mooy yàlla yàlla jële fi yooyu yëpp mu ne ki indi ñii mooy yàlla waxul dëgg parce que dafay dafay def étape par étape di xalaat xalaat gi fan la ko yóbbu xam ne kii mooy yàlla moom yorewul idée arrêté ay idéem kenn bloqué wu ko loolu lañ bëgg doomu aadama moo tax seex bi nee na ngeen di xalaat an atafakkar fi xalqillah ma xalaat ci bind bi yàlla bind mbindeef yi wala nit yàlla bu ñu yéene wa fi anfusikum afala tubsirun xalaat du ngeen gis seen bopp xalaat sa bopp fi ñun ñi toog fii ci biir saal bi góor ak jigéen na kenn xool boppam ba mu neex ko mu ne man sama nopp yi fi mu nekk daal bëgguma woon mu nekk fii ñu laaj la léegi foo ko bëgg acca kenn ci yéen na wax xool mu ne man sama nopp yi wax dëgg yàlla fii nii mu nekk est ce que yaakaaru leen mu nekkoon fii ci sama kanam gi fii laay gën a rafet acca wala sama bët yi fii mu nekk cëy bu nekkoon ci ginnaaw nii ci laay gën a nice aywa ñu essayé soo xoolee sa bopp da ngay xam ne lu nekk fi ko yàlla def loxo yi xoolal loxo yi kan moo naan sama loxo bi fi war a nekk sama dë kon bu leen nit ñi gisee kii dëmm la dañuy daw allahu akbar yàlla mooy karim mooy hakim mooy alim wala lim def noonu lim def tànk yi fi mu ko def ni ngay jublu booy dox loxo yi ni mu ko defee biir bi ni mu ko defee ni mu defee bopp bi ni mu defee bët yi ni mu defee bakkan bi ni mu defee gémmiñ gi làmmiñ bi mu fa saxal yàlla ni mu ko defee moo tax gis nga ba muy wax moo bind nit muy wax ci doomu aadama daaf fal yanzuru l insanu mimma xuliq xoolal ci lan laa la bind soo demee suratul qad aflaha al muminun suratul muminun nga dégg bi mu yàlla di wax ni mu la bindee étape par étape bi aaya bi jeex mu ne fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqin fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqin waaye sell di ñeel na yàlla waaye yàlla bi nga xam ne bindkat yi yàlla moo leen dàq moo leen artistes yi li ñuy mën a peintre olal te doomu aadama nit ñi loolu ne dañoo alku da ngay gis benn waaye bu jël tableau dem ba géej taxaw di jàmb ay couleur bleu rouge di defar géej gi defar biddéew yi defar asmaan yi defar nga gis benn waaye ñëw ne ko tableau bi ñaata lay jar ko 2 millions non non xeeb na ko tableau yi la ñuy exposé nit ñi di ko jënd ay milliards kooku fan la xoole li mu bind ci univers bi univers baa ngi nii yow ngay xool te waaru woo nga xool tableau bi waaru ndax déggu leen lu ma wax tableau yi ngeen di gis ñuy ñuy exposé ah même tableau nit ñi seen waa yi sax léegi dañ koy defar di ko jaay tableau 1000 francs nga gis ku jënd def ci saalam te loolu waa ji dessiné yow yaa ngi nii jàkkaarloog moom direct wax nga nga koy gis nga koy xool jommi woo nga xool tableau bu ñu dessiné bi nga jommi ngay jommi ci ci ko ko defar ki ko dessiné yàlla mi dessiné waa ji nag dégg la loolu da ngay ñëw gis tabax bu ñu tabax tabax bi rafet ñëpp taxaw di xool tabax bi jommi sëtëtëtëtët ñi taxul ay ponkal ñoo ko defar ponkal mi defar ponkal yi ko defar nag loolu mooy suñu wax suñu problème mooy yàlla suñuy xalaat ak suñuy xel dafa bloqué wu ci moom duñu gis li mu def li ñeneen def la ñuy gis te pourtant yow mii ku la ko def nga bañ nga mer sa jabar a ngi nii ko def mu mer tey jii boo sa jabar toggoon ba yekk nga lekk ba suur jaar na jërëjëf ndey te moom kumba la tudd mu ne la kuy ndey ñoo ne benn xale bu jigéen bu rafetlu quoi fii laa ko romb guddi googu day reer boobu du rees jigéen ñaa ngi nii laaj leen ko yow ku góor ki tamit doo ko nangu sa jabar bu njëkk jëkkoon daan na ci ci ci cay diw nga ne kuy kooku mën a bàyyi benn gentleman bu nekk fii la quoi ndax bis boobu di nga naan ataaya même bu fekkoon ne mu ngi ataaya yaakaar naa baraade bi ngay bule waaw léegi nag yow nanguwoo ko ci sa bopp sa soxna nanguwu ko ñu bugg ko def ci yàlla te xoolal ñun rek nanguwuñ ko ba pare ñu bugg ko def ci yàlla kon dañuy xalaat ci yàlla suñ boroom subhanahu wa taala waaye loolu lum ñuy yóbbu mooy ñuy xalaat fi xalqillah ci mbindeef yàlla yi te nag mbindeef yëpp yu ñu xalaat rek dañuy gis yàlla boo xoolee géej gis yàlla boo xoolee dex boo xoolee asamaan boo xoolee suuf boo xoolee garab yi tey bu ñu la laajoon ñaata garab ñoom ci àdduna la yoo ñaata façon garab mun nga ko mun nga ko xan ma ko xam fii ci ñun te xoolee yàlla lim def ci xay xam-xamam ak xereñam lépp lu mu def rek ay borom xam-xam ñoo ciy génn am na ñoo xam ne xam nga luñ jàng garab kese am nga ñoo xam ne xam nga luñ jàng suuf kese am nga ñoo xam ne xam nga luñ jàng biddéew yi kese am nga ñoo xam ne xam nga luñ jàng nit nit même nit rek nit ngay gis ñi nopp rek lañ jàng ñii bët kese lañ jàng sa bët buy metti fan lañ la wax nga dem ah sa bëñ buy metti ñu ne la nga manqué deret ñu ne la xoolal te yàlla loolu lépp moom moo ko ne kërëb te fii ay ay nit nit ñoo ko jàng tey bu ñu la waroon defal bilan hôpital dañ laa la demal ci ñu yor yax yi ñu xool yax yi ñu ngi dem ba pare ñoo ñu bind seen rapport teg ñu ne la demal ci ñu yor der nga dem demal ci ñu yor bët soo paree ñu ne demal ci ñu yor bëñ pour ñu defal la bi dañuy xool kenn ku nekk li nga jàng ñu ne la defalal waa ji ci loolu waa ji xool loolu fi mu nekk nii ñooñu ñëpp boo xoolee liñ jàng kenn moo ko def muy sunu borom yàlla. wala yàlla mu ne am na benn téere bu benn waaye benn téere mu ne al insaan zalikal maxluq al ajib keneen ki ne al insaan zalikal maxluq al jahil waaw doomu aadama dafa réere boroomam te dëgg la adresse boobu la ko yàlla teg doomu aadama xamul yàlla parce que lu tax xam-xam bi ko yàlla may ak xel mi xalaat jëmalewu ko ci yàlla ci mbirum àdduna la ko la koy la koy yemalee moo tax foog ñuy xalaat ci mbindee fi yàlla yi yàlla lim def ci àddina bi yëpp tey da ngay gis ay nit ñoo xam ne loolu kese lañ jàng ñii lan la ñuy jàng ñu ne ñii lii la ñuy jàng ñoom ñoom xamuñu lii te loolu yàllaa ko def lu tax ñu bañ ci xalaat te loolu boo ci xalaatee gis yàlla ku xalaat ci dara lu yàlla bind rek gis yàlla waaw moo tax nu dafa romb xaj lu tax yonent yàlla nu ñu tuddee ko nu nu li muy tekki mooy ku mun a jooy nee nañ dafa romb xaj xool xaj bi ne xaj bi moo ñaaw xaj bi ne ko binduma sama bopp bu ma bindoon sama bopp rafet yàlla ma bind te nangu naa ni ma yàlla bindee wax ji dugg ko nuux di jooy ba yàlla tuddee ko nuux ku mën a jooy dëgg la wala kooku gis na yàlla ci xaj ñun ñun duñ gis yàlla fenn te fenn daf ñoo jege parce que duñ ko xalaat parce que amuñu temps business beeg dem dikk beeg town beeg maanaa beeg dem dikk gi rajax-rajaxe yooyu lañ moo ñu yitteel te yàlla ay mbiram nekkul lu ndaw foog mu yitteel ñu cheikh bi mu ne beneen bi walaysa fi zaatihi déedéet toog di xalaat yàlla déedéet ci mbindeefam yi tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadra munu leen ko bu leen toog di xalaat yàlla waaye xalaat leen ci mbindeefam yi su ngeen xoolee mbindeefam yi gis yàlla ku defar asamaan moo tax gis nga fii loo dégg dégg dégg ñuy wax sëriñ si sëriñ yi lu ñu mën ngay dégg kii moom bu nee na am moo am kii day dekkil kii moo yóbboon fële kii moo mbejoon malakal mawti bët bi tuuru waaw am na ñu koy ñu ñu sëriñ yi ñu koy wax waaye doo dégg mu sëriñ mu ne maa defar asamaan kon taalibe nag ko ah léegi nag yow nag léegi nag yow nag moom nag mën ngaa defar lu weex loolu lu weex loolu laa wax de loolu ñuy naan di ko ndékkee ah xaw ma ko de man lu weex loolu laa wax waaw doo dégg sëñ bu ne maa ko defar asamaan lu nee na di nga dégg taalibe yi tuumaal ko ko waaye asamaan waaw ku ko defar yàlla lan la ko yàlla defaree lan la ko téye ku defar suuf te yàlla xereñam bi muy defar asamaan asamaan la nekk di defar asamaan seng yi ki ko doon defar fu mu taxaw ci suuf fii ci suuf ah ñun ñëpp bu ñuy defar dara ci kaw fu ñuy taxaw ci suuf yàlla moom ci kaw la nekk di defar kaw asamaan lañ njëkk defar ak suuf xalaqa samawaat jàng leen ay xalaqa samawaat wal ard asamaan la yàlla njëkk defar te mu ngi foofu après doog a defar suuf
wal arda ba'da zalika dahaha axraja minha maaha wa mar'aha wal jibaala arsaha mataan lakum yàlla rek mooy yàlla waaw te amul moroom wa azza kamaaluhu mais mal asaf nit ñi xamuñu kan mooy yàlla moo tax mu ne na ngeen ci xalaat bu baax ngeen bañ a xalaat ci jëmmam moom yàlla kon munu leen ko waaw mu ne amma sifaatihi taala faqad asaarat al ayat kasira ila sifaati bu fekkee melokaanam la moom yàlla am na aaya yu bëree bëri yu ci wax ay aaya alxuraan kal baqa yàlla moo fi des al baqaahu yàllaa fi des loolu aaya la kan moom moo mën a indi aaya bi
wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram kullu man alayha kullu man alayha fan ñoom dañuy dee tout kan la yàlla bàyyi bi malaaka yi déggee yàlla mu ne kullu man alayha fan ku dëkk suuf da ngay dee malaaka yi dañ doon zibile kaw asmaan daan ne ñun duñ dee kullu shay lu tax ñu ne lañ las naa sukkaanul ard wa innama nahnu sukkaanu sama ñun dëkkuñu suuf asmaan lañ dëkk te yàlla ne na ñi dëkk suuf ñooy dee yàlla mu ne
kullu shay
ci beneen deuxième aaya bi kullu nafsin zaiqatul maut ku am bakkan da ngay dee malaaka yi ne jeex na ñun bokkuñ ci ñaari aaya yi ngi nii wane ne nun dundee ñun amuñu bakkan ñun dëkkuñu suuf yàlla nee na ku am bakkan dëkk suuf yaay dee ñun nag ñaar yu amuñu ko yàlla indi troisième kull bi mooy bombe atomique bi bi mu rajaxe adduna bi lépp tasaaroo kullu shay'in haalikun illa wajha ku dul yàlla da ngay dee waaw léeg-léeg ñu benn kilifa gu dee ngay dafa làqu day nelaw daa wàcc liggéey daa dee yooyu yëpp ay wiiri wiiri la yàlla jàkkaarloog Seydina Muhammad ne ko innaka mayit Muhammad mu ne ah mu ne da ngay dee bëggal ku la neex di nga ko bàyyi bis solal lu la neex dana ràpp ku la neex bëggal bisa ngi ñëw dinaa la tàqale kooku lu la neex lekkal bisa ngi ñëw day ràpp solal day ràpp waaw yàlla ne Muhammad da ngay dee kon keneen lu tax bu dee ñu naan dafa làqu dafa nelaw ak dafa kii ak dafa dee dee du gàcce dee victoire la ci ku sànkul dundam kon nanuy xalaat ci melokaanu yàlla yi yàlla mooy ku fiy des albaqaau lillah da ngay dégg nit bu dee ndeysaan buñ koy suuli nga dégg ñenn ñi jàpp ci kees gi naan albaqaau lillah ci yenn dëkk yi yàlla rek a fi des yàlla moomu wal qidamu moo fi jiitu huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batinu huwa al awal mooy ki fi jiitu balaa lenn di fi nekk yàllaa fi nekk wal axir moo fi mujj te du jeex mooy ki feeñ mooy ki nub huwa al awal ndax am na ko fi jiitu yàlla kenn ndax dégg ngeen ku fi jiitu yàlla yàlla amul moo fi mujj moom yàlla kenn du fi mujj ku dul moom moo tax mu ne la loolu ci melokaanam yi la bokk moom yàlla wa hunaaka ayaat am na yeneen aaya yoo xam ne asharat joxoñ nañ ila muxaalafatihi subhanahu lil xawadis moom yàlla dafa wuuteeg mbindee fi dafa wuuteeg li sos laysa ka mislihi shay yàlla nuroowul ak kenn moo tax yenn saa yi nga dégg ay nit naan ñun danoo gis yàlla wala man yàlla laa du dëgg ndax yàlla nee na nuroowuma ak kenn te yow mi wird gis dara loolu nga gis dara la wala yàlla nee na ma nuroowuma ak loolu yàlla nuroowul ak dara beneen bi mooy lu gën a doy waar benn waaye dafa doon laaj benn borom xam dafa wax ne yenn saa yi nga gis nit gént ne man gis naa yonent bi nee na loolu dafa am ay charte ay dawaabit tey ji bu benn waaye ñëwoon ne leen gis naa oustaz fay fële ñu ne fan mu ne fële gars yi ne ko du dëgg mu ne wallahi gis naa ko ñu ne ko nu mel mu ne dafa njool lu ngeen koy wax yow li yow li gisoo ñu ne leen mu ne dafa xees lu ngeen di wax gisoo yow benn waaye nee rek damaa gis Mouhamed taal taal bi doon def waaw yaa ngi fàttali boo ne ma texe nga texe nga texe nga texe nga texe nga waa ji ne ko waaye li ma jaaxal daa ñuul mu ne xam nga ñu wax men ñuulul kon yow gis naa Oustaz Seydou li ok nu mel nit ki pour nga xam ko ba mën a wax melokaanam mooy foog nga mës ko gis foog nga mës ko gis nga xam nu mu toll njoolaay nu mu mel yaram ci yaramam melokaan yi ci nekk dafa am sikkim wala dafa am yaram wala dafa sew wala dafa njool wala dafa gàtt il faut nga mus ko gis du dëgg imagine nit ne man gis naa yàlla foo ko mos a gise ba xam ne kii mooy yàlla lan moo lay won ne kii nga gis yàlla la ban melo lan la ndax dafa am foo ko mos a fekk ba mu ne la man la nga ñëwaat tey nga gis ko nga xàmmee ko maa ngi benn vidéo sama portable temps yi li ñuy wax jëmale ko ci yàlla ak yoon benn waaye nee na ñun suñu sëriñ moo même yonent bi suñu sëriñ moo ko dimbali mu gis yàlla te sax ba mu gisee yàlla ba pare léegi sëriñ bi dafa jël yàlla nëbb ko feneen léegi moom dootu ko gisati yàlla nekkatul fa mu nekkoon ndax toxal nañ ko fa ndax daa kontaan ci yàlla
maa ngi vidéo yi fii sama waa ji ne ñun téere yi ñuy jàng moo gën alxuraan ni alxuraan gën a silaabeer waa ji ne ñun yàlla daana yonent bi tànnal yonent bi fekk yéeféer yi mu tànn jullit yi ñaata nit a fa nekk ñaata groupe la yàlla fekk nit ñëpp toog nekk ay yéeféer mu ne yonent bi tànnal yonent bi tànn ci biir yéeféer yi ay jullit ñaata groupe la léegi ñaari groupe mooy jullit ak mu ne yàlla ne diw tànnal diw moomu ñëw ci jullit ñi tànn ñeneen mu ne ñun loolu lañ duñu ay jullit waaw mu ngi fii sama port sama portable ñun nangam la ñun duñu ay jullit loolu nu ko nit di waxee mooy ñàkk xam yàlla rek nit ñi bu ñu réeree ku réer moom ku réer la rek waaw kon asmaullahi alxusna ak xalaat ci yàlla ci mbindee fi yàlla yi ak ci melokaanu yàlla yi ci aaya yi nga xam ne yàlla ay melokaanam daf ko joxoñ lu bëri yàlla subhanahu mu xaalif lil xawaadis yàlla nuróowul ak mbindeef yi day gis day dégg day wax am na loxo am na tànk waaye dafa wuteeg mbindeef yi waaw gars yi fel am na bët wala amul bët fel am na Grand Yoff damay laajte ndax fel am na Grand Yoff du ngeen tontu kon fel amu fi waaye yéen nees fii fii ah fii fii kii la ah amu leen ay fel
yéen waa grand yow amoon ay fen est-ce que am na bët wala amul bët am na
kuy tontu naam am na am na bët nag nit repp ne ba ne amul bët soo amul bët nu mu lay xoolee ba xam ne yegg si nga mu daal di naaw teg ci yére bi dugg ci biir yàpp bi toog di lekk kon am na bët day gis waaye xoolal tey bu ñu la waxoon bëtu fel fu mu nekk ak nan lay gisee est-ce que bëtam ak sa bët ñoo nuroo loolu moo la ne yàlla day gis waaye bul wax ne comme sa bët yi la yor day gis rek alxuraan moo ko wax day dégg day wax sami basir day wax wa annahu kallama Musa takliman waaye bul Musa wax ne sa melokaan sa melokaan yow mii yaa ngi yàlla yéena bokk melokaan déedéet yàlla subhanahu wa taala dafa wuuteeg ñun nuróowul ak ñun yàlla du mbindeef yàlla sosuwul du mbindeef du nit sosuwul bul yor pas-pas boobu waaw bul wax lii ñii ñi di wax waa ji nee na dafa am jëwriñ bi jëwriñ dafa topp ay tànk topp ay tànk ba fekk sëñ bi toog mu ne ko ana borom tànk yi mu ne ko mu ngi ci wanag wi liggéey mu ñëw fekk yàlla moo fa laxasaayu di liggéeyal sëñ bi loolu nu ko nit di waxee yàlla mu wàcc jóge asamaan ñëw laxasaayu di rato di rato non allahu akbar Sénégal gii dëkk fi sax wóorul dëkk fi billaahi wallahi wóorul ndax bu yàlla di ñu alak ku mu fi fekk mala alakaana gi da lay yóbbaale su ngeen dekkee nag du ngeen bokk fu ngeen dekkee fii dëkk fi wóorut li ñuy adressé yàlla akub yonentam fii ci réew mii non dafa ëpp dara waru ko nag lu dul réer ak ñàkk a xam diine ak ñàkk a xam islaam ñàkk a am texte yu leer nañ moo tax ñuy wax li ñuy wax fii ñàkk a jàng lii téere yu mel nii duñ xam yàlla jamais parce que jànguñu ko nañu am melokaan yooyu nga xam ne yàlla moo ko melal boppam ay aaya wax ci yàlla wuute ak mbindeef fi min xalqihi wa tanzihihi anil walad yàlla amul doom yàlla dafa setal boppam ci am ay doom loolu aaya la lam yalid walam yulad mattaxaza allahu saahiba wala walada xoolal jinne yi sax ba ñu déggee loolu nit ñi naan yàlla am na doom jinne yi laa wax de dañu ne wa annahu taala jaddu rabbina mattaxaza saahibatan u ak a kawe wa annahu taala lan moo kawe ñu ne jaddu rabbina sunu màggaayu boroom mattaxaza saahib wala walat musta am jabar bay am doom jinne yi sax loolu la ñu wax de asamaan bi mu déggee ñu ne yàlla am na doom yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattar na asamaan yaa ngi xotteeku ñu ne ko suuf nag mu ne wa tan shaqul ard suuf di xar ñu ne ko montagne yi nag mu ne wa taxirul jibaal hadda lu tax mu ne an daaw lirrahmani walada wa ma yanbagi lirrahmani an yattaxisa walada in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda asamaan sax dafa weddi suuf weddi montagne weddi jinne weddi nit ñi di dëggal yàlla am na doom ma ne yàlla mu ne saaga biñ ma gën a saaga saaga bi gën a rëy biñ ma saaga mooy wax ne man yàlla am naa doom saaga la ñun ñu toog ci saal bi suñ fi waxoon kenn papaam am na doom Dakar fële wala Gibraltar wala nangam te papaam amu fa jabar luñ ko wax xool leen loolu rek kan ci ñun moo bëgg ñoo fekk la sa seen kër nga toog ñu ne la yow sa papa ngi fee di ngénte nga ni fan ñu ne la fële koñ ban koñ bële ñu ne sa papa moo fay ngénte tey te yow sa papa benn soxna la yor mooy sa yaay léegi lu ñu la wax yow xool loolu ñu wax ko yàlla nit ñi nit ñi di organiser fête 31 décembre ak 24 te tey la doomu yàlla bi judd wallaay wallaay wallaay dëgg la jinne yi loo xam dañ ko weddi asamaan weddi ko suuf weddi ko ñëpp weddi ko ñun ñu koy dëggal ñun doomu aadama yi bu jotee ñu peinture tali yi takk ay ay lampe monté lampe verte jaune rouge ay lampe façon fa lampe peinture tali yi peinture garab yi nit ñi di feetu nga gis julli yu dem jënd ay ginaar non baali wu ñu mais dañ koy def en frère waa en famille quoi ensemble quoi looy def ensemble ñu saaga yàlla ngay def ensemble feet yàlla mu ne saaga bi gën a rëy mooy dañ ma utal doom dañ ne dama am doom saaga la dañ ñoo ko wax doomu aadama yi yàlla mu ne man awma doom tanzi anil walad wal walid noonu aussi amul way jur yàlla amul papa amul yaay ñii nga gis fii tey ñu naan man maa yàlla wala diw yàlla la ñooñu amuñu papa amuñu yaay dama leen laaj ñi ngeen dégg fii ñu naan la diw yàlla la ana papa mag yaayam yàlla di ngeen gis papa mag yaayam waaw te kii gis ngeen papa mag yaayam wala kon mbir yi leer na mbir yi dafa leer nañ mi ngi mel ne làmp bëccëg jant bëccëg ñun ñoo fi nekk di dof doflu ak di farfarloo ak ñàkk jàng suñu diine ak torox ñun kese la waaye mbir yi dafa leer nañ de dara nëbbatuwu fi mbokk yi yàlla nuroowul ak kenn wa shabiih yàlla nuróowu ñoom ñun amul kenn ku fi yàlla nuróo da ngay gis nit ko am doom ñu ne kii dafa nuroog papaam kii daa nuroog yaayam kii daa nuroog maamam kii daa nuroog seen famille kii daa nuroog kee di la jaawale yàlla nag amul ku mu nuróol loolu foofu la sunu dar si jeexee noo ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullah